dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu abu te leen ngir dara bañ leen raw wala xibaar ba tey mbokk internet info son vingt 221 dañu daal di àddu rek jëm ci ginnaaw nag li nga xamante ni moo am jamono ji fii ci Sénégal jëm rek nag ci euh, médiation wala sax nag amnistie bi nga xamante ne jamono ji ñu ngi koy dox ngir Ousmane Sonko mën a am liberté ak moom ñeneen leader politique yi nekk ci kaso bi euh, Adji saar nag jot na ci réagir moom mi nga xamante ne boobee ba tey kenn déggu ko ci benn entretien boo xam ne jot na ko amal ak ñi di waa Seneweb ñi ci altine altine bi Alioune Tine nag bu njiital Africa dem centre Ousmane Sonko dafa war a nekk ku ñu libéré bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee information boobu nag Adji Sarr daal dina si jot ci ay kàddu moom Adji ci réseaux sociaux yi nga xamante ñu bëri ci ay journal jot nañ ko daal di fësalaat moom jeune femme bile jot na manifeste nag nee ànd benn yoon ñu daal di bàyyi Ousmane Sonko mënuma ko baal ci li nga xamante ne moo ma ko teg tey jii dañ ko war a bàyyi mu daal di nekk ci kaso bi purge peine bi nga def dara te lépp lu ma dal moom moo ma ko war a Adji Sarr daal nee na mi ngi attaqué baax kii di Ousmane Sonko di sàkku ci président Macky Sall amnistie bi ñu wax buñ ko def benn yoon nañu bàyyi Ousmane Sonko mu purgé ñaari at yi nga xamante ne moom lañ ko de la jeunesse moom président bu parti Pastef mu ngi ci détention provisoire depuis teg loxo bañ koy toppee jëm ci appel à l'insurrection complot jëm rek ci nguur gi ak yeneen mbir yoo xam ne teg nañ ko njoojam jamono ji ma nga ca Cap Manuel manuel waaye Adji saar nee na nag ànd benn yoon rek ñu bàyyi ki nga xamante ne rek moo di Ousmane Sonko jamono joojee nag ci manifestation yi nga xamante ne jot na am ñu tegoon ci ñu bari ca Louga fanweer ak benn manifestant yi ñu jotoon a teg daara ak Linguère jot na leen bàyyi ñu bi seen kenn tollu woon nañ ci fanweer ak benn ndaw yoo xamante ne dañ leen tegoon loxo niki àjjuma ji ginnaaw nag fitna bi amoon ci wàllum toxal élection yi taxoon ñu wàccoon ci mbedd mi ñoom ñooñu ñëpp jot nañ leen bàyyi may leen liberté provisoire niki tey jii ci kanam nag procureur ñu jàkkaarleeg moom tribunal régional bu grande instance nag bu Louga la amee manifestation yooyu sax bari na ci woon ay jàngalekat waaye tamit ay membre coalition Diomaye président ñoom ñëpp nag musal nañ leen ba tëjun nañ ci kaso bi bokk na ci syndicat yi nga xamante ne jàngalekat yi moo tax sax ñoom ñuy amal jamono ji ay débrayage lu ñu bëgg mooy ñu bàyyi élèves yi ak jàngalekat yi nga xamante ne ñu ngi leen teg loxo waaye tamit euh, yóbbu élection yi ci date bi nga xamante ni moom lañ ko jàppoon ñu leen mën a wax nag ca jaar ca daara Jolof njàng meek njàngale mi sooxe na lool ndaxte jamono ji kenn jàngalewu te étudiants yi élèves yi ñoom ñëpp nag ñoo génn ci classe yi di manifester.